bi commission dépendance changement des votes proclame résultat yi coalition bi ñuy wax benn Bokk Yaakaar moom moo gagné si liste majoritaire te loolu yoon dafa ni bi nga xam ni coalition wala part bi nga xam moo gagné liste majoritaire bi ki ko jiite moom mooy nekk maire loolu moo tax monsieur Alioune Sarr donc moom la ñu fal maire commune Notto léegi ñu koy ñaanal donc euh, mission bi ak mandat bi mu nekk mandat bu am réussit ba yaakaar yi nga xam population teg nag si moom yàlla dimbali ko ba man koo réaliser. ci biir Jobaas pour ñu jiite li nga xam ne mooy sunu commune moo tax maa ngi bëgg ci turu conseil yi fi nekk yëpp comme man la yàlla jiital ma gërëm askanu Jobaas ci li nga xam ne def nañu ko ba tànn ñun juróom-benn fukk yi ñu mën a nekk fii tey may wax ne. amatul conseil municipal lu Benno Bokk Yaakaar amatul conseil municipal lu amatul conseil municipal lu euh, Yewwi Askan conseil municipal lu Notto Diobass moo am amatul man conseiller Notto la mbaa conseiller Babac mbaa conseil Anen mbaa conseiller Mbousnakh déedéet conseiller askanu Diobass moo fi nekk loolu looloo waral sunu kemtalaayu kattan mooy lépp lu ñuy jëf fii ci conseil municipal bi lenn rek na ko sabab mooy njëriñu askan bi ndax loolu tax ñu teew fii monsieur le sous-préfet chers collègues Sénégal bi mu amee indépendance ba léegi dafa jublu ci li naan décentralisation maanaam fexe ba askan wi nañ koy saytoo ñu jegeyantu ak moom maanaam proximité proximité proximité looloo waral ci biir constitution Sénégal maanaam loi ba nga xam ne askan wi ne la la nga xam ne moom la loi sant ci liggéey ci wàllu commission ci wàllu lépp fas nañ ko ànd ak yow en aval et en amont maanaam ci xalaat bi ci njëlbeen mais également fi ñu koy dogale parce que li ñu war a moytu mooy temps boo xam ne dañ koy perte ci li ñuy jëfe ndax askan wi xaaruñu askan wi dafa yàkkamti particulièrement nag la jeunesse ndax ndaw yi ñu voté lu mat juróom benn juróom doomu aadama ci fii Jobaas sànni ñu seen ay xob ñu ci ëpp ay ndaw lañu kon amuñu droit di perte temps loolu waral préfet yaa ngi ci mën a dimbale nag ndax bu ñu dogalee ci conseil municipal balaa ñu kaa jëfe da kaa approuvé kon diggante boobu war na ratax ba nga xam ne lépp ay bar ca budget ca décision conseil ca délibération lépp loo xam ne nag def nañ ko war nañ ko tënk également ci loi Notto Diobass nag daa am loo xam ne yàlla ko jagleel te war ñu ko fàtte mooy am na foncier may lance waat appel nag ndax occasion la ci askan wi ngele seen tool yi nangeen ko aar na ko samp ñu bañ toog di jaay tool yi ndax ni day jaay tool fëlam fële ba pare ñu yeewu naan maire ni te maire yëgul maa ngi lancé un appel à la population ñu aar seen foncier ñu aar seen foncier ndax mënoo nekk jege aéroport jege autoroute ba pare di saax-saaxee la nga xam ne mooy li ëpp valeur mooy le pour c'est pourquoi monsieur le sous-préfet nous souhaitons également l'accompagnement de l'État ci fànn googu li may daaneel rek mooy ne nañ beral loxo bu baax a baax la jeunesse ndax ñoo gën a bëri ci askan wi te am nañu ay itte surtout wàllu emploi loolu waral lépp lu jëm ci wàllu fexe indi ay entreprise bu ñu samp ci commune bi nekk na ci xolu sunu programme bi ñu bëgg a taxawal loolu nag ñu def ko dañu soxla état ndax bu entreprise ne day def wàllu transport mbay def wàllu ingénierie bëgg ñëw fii ci Jobaas bu ah, buñ ci àndul jàppale ko loolu day nekk loo xam ne jafe la moo tax maa ngi également lancer un appel les élus pour que suñu priorité nekk la jeunesse et la jeunesse bu ñu ko bëggee def priorité mooy la création d' emploi te création emploi nag amul beneen yoon bu dul entreprise amul beneen yoon nan damay créer emploi damay créer emploi déedéet neen damay créer entreprise ndax soo créer entreprise entreprise mooy recruter emploi mairie lu bëri boo xam ne da ngay créer entreprise da ngay mais état du bërëb boo xam ne dangay créer emploi déedéet entreprise ngay créer entreprise maintenant créer emploi loolu nag moo tax ma ne woon naa ko wax syndicat bu jërëjëf leen sant leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatulah.